Allez, ballon le premier poteau, attention à la reprise Il s'est fait connaître grâce à ce but face à Bordeaux en janvier 2020 lors d'une 16e finale de Coupe de France, remportée à l'époque par Pau FC, ce qui les a permis de se qualifier en 8e de finale, un parcours historique pour le club palois. Mustapha Nam rejoint par la suite la capitale parisienne en signant à Paris FC en Ligue 2 où il réalise une première saison réussie. Élu notamment jour de la saison du club lors de la saison 2020-2021. De Dakar à Paris, en passant par un essai à Lokeren et deux saisons à Pau FC, le natif de Liberté 4 nous a reçus Euh, on dirait que Moussa a toujours du mal avec la météo française. Mais cela ne l'empêche pas d'être très bon sur les pelouses. Il marque notamment 6 buts et 2 passes décisives depuis le début de cette saison ce qui lui donne un rôle importantissime à Paris FC. waaw am fi rôle bu bu bu bu bu important parce que tey dit ni club bi dañ ma jox confiance que ça soit euh, direction bi wala coach bi ak staffam jox nañ ma confiance dañuy euh, coach bi day wax ak man souvent donc euh, xamal na ma ni que man donc ci cadre équipe bi la bokk mais tey dit nii man coach bi su ma waxul loolu sax man xam naa lu may représenté ci club bi. donc euh, relais la diggante moom ak ak ak groupe bi. voilà après chaque jour damay damay damay damay dund ak moom parce que daf may yokk motivation parce que loo xamante ne la c'est pas c'est pas du tout facile et c'est pas donné à à tout le monde. Avec la saison qu'il fait, Mousti, comme le surnomme ses coéquipiers, attire déjà les convoitises am na ay club yoo xamante ni rentré nañ en contact pour man booy booy changer club loolu noonu yow yaa koy wane boo defee saison bu baax club yi forcément dañuy ñëw jël si la après aussi ça dépend si saison bi ñuy def ci club bi donc euh, mën nañ def saison bu baax club yi ñëw après ma continuer sama progression ak Paris FC donc euh, on sait jamais loo xamante ni la ñëwagul la kenn mënu ko kenn mënu ko c'est le futur mais voilà on a envie de progresser des performances qui lui ont permis de rejoindre la sélection du Sénégal en novembre 2020 lors d'un match contre la Guinée-Bissau en éliminatoire de la Cannes au moment où il s'y attendait le moins. Au début, je ne m'y attendais pas. à mon ben suspension bu mon purgé donc euh, ma suis sama troisième match je suis man salle de musculation bi di renforcement donc euh, ci ni may entraîner non, rek téléphone parce que temps bi ci la exercice yi man la donc ni ma téléphone ci trois appels manqués ak message euh, coach coach wax mu ne ma dafa récompenser saison bi ma def daaw ak Pau ak monté bi yëpp ak euh, début saison bi ma def ren ak Paris FC. Régulier maintenant dans la tanière, mais avec un temps de jeu minime, le joueur qui a fait une partie de sa formation à Dakar Sacré-Cœur attend toujours sa chance et dévoile ses ambitions. Ouais, c'est vrai que temps de jeu est mais pour man tey jii nii importance mooy mooy mooy équipe bi groupe bi parce que groupe bi faut mu toll nii mi ngi dox bu baax joueurs yi ngi performer ku nekk ci ci poste. à chaque fois ça fait un an léegi maa ngi ñëw sélection maa ngi régulier donc euh, ligue bi des na des na lu bëri parce que du du ñëw sélection ni ni ni nii rek moo moo ci neex mais lu ci dàkk mooy seul, moi bi muyee faire la fierté de tout un peuple. Du moment où entraîner avec staff amène une confiance qui ci à chaque fois c'est déjà une bonne chose après l'ICDS aussi je vais continuer travail le moment venu je vais vais pas décevoir. personnellement beaucoup de groupes ont nga xamante coupe d'Afrique espérer une coupe d'Afrique après du doon loo xamante ay wax kese la que ça soit man que ça soit groupe bi donc liguey la bo xamanteni dañ ko tambali dañ ko bëgg yeggali ba atteindre suñu objectif yi mais dañu dañu nekk ci ci ci ci ci compétition boo xamante ni tey jii ñu bëri ñoo bokk ambition mooy gagner gagner victoire finale bi donc euh, kan yombul ñëpp xam nañ ñu yombul man mi nga xamanteni ni mësuma jouer kan sax donc xamna ni yombul parce que amna ñi nga xamanteni ni ñi ci groupe bi euh dañuy waxtaan dañ may conseiller donc euh, tout le temps loolu lañ may wax compétition bi yombul. Ngadde, le défenseur camerounais, veut croiser le Sénégal en éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. Qu'en pense Mustapha Franchement, calculer au moins ça. Parce que pour moi, kenn ku nekk da nga focus ci ci sa équipe parce que moom moo am jotu Sénégal mais <laughs> franchement je crois pas que Sénégal am nañ am nañ jotam moom équipe mais voilà après <laughs> kenn ku nekk ak ak sa mentalité ak moom peut-être lu tax mu bëgg a am tasante ak Sénégal moom moo ko xam mais comme ni ma ko waxee léegi rek am na loo xamante ni mi ngi suñu kanam balaa loolu après on aura le temps pour préparer ces deux matchs. Focus alors sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 9 janvier 2022 au Cameroun. Mustapha Nam espère jouer sa première grande compétition avec les Lions et tentera de remporter ce trophée tant attendu par le peuple sénégalais.